I don't All right, Mr. Charles Nyanganebo yeah. Tango. Uh, Charles Nibala Renga introduce Saboba Mungaton because Fida Pahamada. Okay. All right. Uh, okay, I'm John Charles Nyai. I'm the chairman of Tango. Um, I'm here at uh, the surroundings of Paradise Suites um, where the GFF elections is taking place. All right. So, Charles, uh, lan mo xew right now because this gisul la nga duga yang ci uh, biti this current minute well, actually, um, I have taken interest in um, Luiheochi Yefi football for the simple reason uh, I work with young people and there is a lot that is happening in sports in other areas. Um, I have volleyball teams, I have um, basketball teams. So there, was general interest uh, because Giznanda we nakale nyo sone Yefi sport, but it's not working for them. And um, again, the important thing is um, we look at our democracy in Gambia. We know we have newly found democracy, but democracy doesn't start at the top. Democracy starts at the grassroots. So whatever is happening, um, whether it is in civil society elections, Gambia Press Union elections, whether it is in sports, we want to see that there is a culture of transparency, accountability, so that we could build that and escalate it to the national level. And that's why I am concerned. I came I heard that some journalists have not been allowed in. Um, I've come, said, okay, but you have not also extended an invitation to civil society. So can I go in and just observe as a, a neutral external observer? And they denied and, and, they said, well, my name is not on the list. But I've, I've told them to tell the Secretary General that civil society is disappointed because uh, for accountability purposes, yeah. you could have just extended an invitation to external observers. Even yeah. IEC does that. Yeah. IEC sends invitations to local and international observers uh -huh. for best practice, even if it's not in your constitution. Uh -huh. Just for accountability, you could say, well, yeah. let's extend to external independent observers so that at the end of the day, you calm down tensions. When people are not happy uh, with what happened in the elections, uh, you could have an independent voice that said, well, the thing was transparent. So I think for me, it is in that spirit I've just come to see what is happening. But uh, I must also say that I'm disappointed that uh, some journalists have complained that they have been accredited. Some are international um, journalists um, representing international media houses. They have not been allowed in. Uh, I think GFF owes it to the public to explain why these things are happening. So, in light of what you have uh, just experienced, do you think that this process was really particular? The, the process was? Was it a, a participative uh, process? Well, I, I, I, believe we will need to have a whole um, analysis of this. Um, I would want to know what the GFF constitution says. I will know, want to know from GFF, their executive or whoever is in charge, why they have not given accreditation to certain people, why there seems to be some partiality and I think the public needs to demand these answers. Because we cannot be holding government accountable if we cannot hold ourselves accountable. Yeah. We cannot be saying uh, Barrow's government is corrupt if we ourselves in our local organizations cannot be doing things uh, in the right way. So I think I would wait to hear an explanation from GFF. I would want to um, possibly write and say, look, okay, guys, this has happened where have things gone wrong? How can we improve going forward? Because as I said, if we have to build democracy, it has to be from the grassroots. Yeah. Because the next president uh, of the Gambia may possibly be coming from one of these associations. Yeah. So if you are not accountable, if you are not used to being held accountable, if yeah. you are not transparent, how can you be an effective president for the country? And for me, that, that's my concern. Junja, li nga wax ni yëpp si um, anglais du ñàkk tamit nga faram ko um, si wolof. well uh, ci gàttal lu ma wax rek uh, man lu tax ma jël interest uh, ci sport is because am na ndaw yi nga xam ne maa ngi liggéey a ñoom te gis naa ndaw yi naka la ñoo defee luñ mun pour yobu sport ci kanam even ci ndimbal bu tuuti bu ñoo am maa ngi am ñaari volleyball team male female ak ñaari basketball team male and female te gis naa ndaw yi even ndimbal su ñëwut sax ñoon ñu ngi sona ci yëfi sport te xam naa ne mu ngi xew ci football tam soo su lu mel nii xewee tam ah, beneen fana bi mooy ne ah, su ñoo war a wax ne government nguuri Adama Barrow dafa war a accountable and transparent foog mu dooree tam ci suuf ñi nga xam ne ñoo nekk ci association civil society ñun ñëpp dañ war a make sure ne suñ elections yi are transparent ah, an open tu the public open for scrutiny and we are accountable to the people that we lead loolu rek la ñoo mun a def suñ démocratie ba ba ngaa nekk président dëkk bi nga xam ne it will become a culture minen ndi open up minen criticism minen ndi di eh, allow and encourage opposing views loolu tax bu ma romba ma ne ah foog ma dégg naa am na ñu dugut eh, journaliste yu dugut mane ne ah naa ñëw gisal suma boppa xam eh, lu xew wante bugga naa tam su li rombee am waxtaan ak GFF gënaa xam lu xew gën a mun a xam lan mooy problème bi lu tax ñuy tere ay nit pour duga lu tax ñuy tere ay journaliste pour duga because soo bëggee encourage accountability and transparency foog naa ne foog nga waxtaan ak askan bi ah, xam naa ne football nen dee wax ne seen primary stakeholders mooy football clubs yi ak regions yi ak yooyu but you have secondary stakeholders and that's the nation as a whole because people are passionate about football so football su demee kanam demut kanam ci exécutif bi la soo ñoon tam foog ñu waxtaan askan bi bu ñu wax rek ne eh, ñu leen di votal leen amal affaire déedéet ñi nga xam ne ñu ngi leen di votal ñoon tam ci ci askan bi leen jógee soo looloo ta foog naa ne foog ñu waxtaan eh, ci dem kanam gis naa ne eh, police tam ñu ngi def liggéey bu baax def neen sécurité te maa ngi ñaan sides yi yëpp ku win élection bi neen nekk benn yóbbu football ci kanam loolu moo gën a am maanaa fu mu nekk Ah, foog naa ne xaajaarloo bi ak kuloo bi dafa bari torop foog ñu nekk benn ah, ñun askan bi soo maa ngi ñaan tiim Kaba team eh, Kamaso lu lu mun di xew lu xew ci élection bi na groupe si yëpp ñëw baak nekk benn ah, te bàyyi ay eh, xaajaloo bi xaajaloo bi di yóbbu football kanam jërëjëf. all right um, fu mu nekk nii uh, gis nañ ne uh, ñu bari ñu ngi wax ne suñ dëkk bi du dem. Mm. Uh, parce que élection um, bu ndaw rek bu mel ni GFF 77 people ñu war a vote ñu war a deny um, li nga xam ne mooy media bi access waroon nañ koy mun a def comme IEC ni nga ko daan ni nga koy defee si élection benn media house joxe fii ñeneen yëpp dem jëlee foofu fii. Mm. fooguloo ne communication bi des na bu baax a baax mm. waaye the whole Gambia nga jox thirty uh, naka la accreditation cards foog nga ne loolu is fair and not all media gis nga loolu tax ma ne GFF executive bi ne wanna explain to the public because sooy wax transparency accountability and fairness mooy ne da ngaa explain ne lii mooy criteria bi because lu ta nga wanna jox thirty te joxuloo forty lu tax nga wanna because you have to be fair on what basis ngay jox ñeneen accreditation joxuloo ñeneen so loolu soo ko explain ti askan bi. soo xoolee force comme force ab nit yi xam ne ah force tati bi la. on a wante soo defut loolu da ngaa tax nit seen xel ñaaw te man loolu tax ma ne suñu wanee encourage démocratie IEC soo gisee ñuy joxe accreditation to international observers over thousands eh, international local observers neen bugg seen eh, ku nekk a xool ne ah ñun amul dara lu ñoo nuba soo ñoon tam neen wax ne 50 journalistes rek leen mun a joxe eh, accreditation. man am chairman of civil society so suñ ma bañee ma dugga san ne ah xaaral ma seet luy xew eleka ci biir su nit waxee gis nga ma wala dara yëfi observer dafa important soo leen seetee 2021 election bi soo leen fàttale ko opposition bi neen jóg ne d'accorduñ ci results wante civil society we had over a thousand observers we had over a thousand bu bu dëkk toogee dégg ne ah élection bi demul ci yoon observation yi ñoo jóg ne ñun ci duñ gis élection bi fo nee ne dem na ci yoon loolu at least dimbali na dëkk bi am am am am am some kind of peace and tranquility loolu tax observer independent external observer loolu tax ñu am maanaa torop ak am njëriñ ci elections so man maa ngi ñaan askan bi ku mun di def élection whether civil society whether eh, GPU invite leen external observers na nit yi ñëw xool ku su ëllëg ci biir su wax amee ne lii fiyaawut lii moo xew lële moo xew nga mun a wax ne ah kaa ñu déglu lu observers yi wax man foog naa ne loolu moo ñoo dimbali pour build suñ démocratie bi ko ñun fu ñu génn ñun Gambia ne war a ku ne fu ñu jógee dafa métti torop buñ fa deelu te naka leen fa du deeloo let democracy transparency be a culture from grassroots to the highest office in the land sa final message bi. well suma my final message is let peace prevail let the best candidate win ah, su loolu su élection bi jeexee war naa gars yi team Kaba ne fekka ñoon ñu ne ñoon win ma len leen fekka win ngeen embrace leen beneen team bi ngeen nekka benn because football duñ ko mun a dawal ci dëkk bi ñu xaajaarloo so ku mun di win whether team Kamaso or team Kaba let us come together we have a football uh, fraternity to build. We have a game to build. We have young people to support. That's my plea. Let peace prevail. And whoever loses, let them just take it in good faith. But let peace prevail. All right, thank you very much. Uh, dégg ngeen um, kàddoom uh, moom nag moom all the time uh, duy daw li nga xam ne mooy media bi. gis ngeen ko team different teams yi ñoom it ñu ngi noonu ma different teams yaa ngi noonu jigéen ñi ñoom it ñu ngi noonu góor ñi tamit ñu fi. Ah, ku nekk rek ak ah, li nga xam ne nag ah, moom gaay am observe bu ko defee rek ñu respectal leen ko bu boobaa nag xam naa nag fii leen koy emale ah kaay ñu na fi gis kaay looy def fii ah kaay def noo tudda ak yow kan man xam naa la waaye xam naa ñuy seetaan du ñàkk looy def fii yow um, dama ñu before even you ask me, Tim Kamasu. Mm-hmm. Mm-hmm. Tim Kamasu. Tim Kamasu. All right. Mm -hmm. So, Lutah Dugulo Sibir as an observer. Mm, I'm not a delegate. Mm-hmm. Yes. So, but Fogane, you know, it's elections. Fogolone then what um, independent observers, yo hamne, uh, denyo nyoku observe linga hamne whatever, whatever can make any election credible should happen. So, um, if it's a growing concern, we said, Rex, you can have things we can do to make it always better. So, yes, gëm naa loolu. so noo gisee elections bi foog nga ne mu dem right or. Um, it's there it can be um, yan ideas nga mun a jox gars yi ko defee ñu gën a mun a defar defaruwaat. loolu ñun dañoo dellu toog. Those are team owners and team members. And let's see what we can do. We always uh, you know, make things. We have, we have a football to develop, we have a game to develop, we have a future. please, please. All right, jërëjëf. Again, outside nit yaa ngi xaw a ñu stress ñu ngi xaw stress gis ngeen gars yi ma ne ko gis ngeen ngi stress out. Ah, nakam na nga def. maa ngi fay. Ah, lu xew. ah yow ñuy gém bi dafa feew bu yàgg. gém bi di bi si buntam leen yaaxee leen di bi si buntam leen ko yaaxee. Mhm. loolu moo tax ne kawa moo bi lii yëpp ka win bi yëpp demul si dañ ko manipulé rek yaaxa yëpp. def announcement bi. gars yi announcement moom la yow dégg déggul fu mu nekk nii de. parce lu gars di wax lii yëpp demul yëpp la gars yi di bi foos di la gaa yaaxal yëpp yow naka la nit di ñëw nga ne du taxaw du mun a dugg amul benn team votalu ko pour lan yow soo ko xamoo aw conférence nga wax ne waa kii kii nii nit yi mu dem léegi lan la mu yow di taxaw di ko indi lii yëpp la gaa yaaxal fu mu nekk nii fay naa ko maa ngi fay sa tur bi nag man jawara yow na ngaa indi candidate candidate ñu nominate ko since nomination date ñu nominate ko ba date war a dugg gaa ñu dee du dugg te ñoom seen xay teewul dafa ñëw al indi moo ne sali seen xay teewul bi ñëw ñu duga léegi nag moo tax ñu ay kamaso bu duga pour lan loolu dafa xaw na suñu gaa bu yàgg si di post campagne la gaa yaax yëpp. lan moo tax nga um, ah, candidate ban élection nga musa dem candidate war a ñëw duga pour si ñu ne bu mu duga pour lan ndax Adama Barrow élection bi noonu lañ ko def ndax musa am lii benn tension musta am façon tension bu kamaso Gambie football a développé wax te ñëw pour Yaxa football te ñoom ñoom Kaba la Gambie la la ci man bi Yaxa ay kama yeeg ay li ay ñaata tawsan Gambie defuñ dara bu duñ ñu football Gambie dem kanam day bëgg a football Gambie day gën a deel lii naka a possible ne nominé nañ ko nominé nañ ko ba pare nga ñëw nga ne déedéet bokkul benn team dañ ko sànni dañ ko lële team bi ñëw na ne waa moom moo ko nominé léegi lan lan la ñuy ñëw ñu ne déedéet baaw ñu ñëw ñu ne nomination bi baaw Fap ñu ne daaxa nañ ko Young Africans ñëw na Young Africans ñëw taxaw ñu ñoo ko ñoo ko nominé léegi lan lan la dañ ne sooy taxaw président as candidat da nga war a am lifi team boo xam ne moo lay nominé léegi moom Young Africans ñoo ko nominé lan la gars di taxaw ñu ne dee Young Africans nominé loolu foofu la gars yaa ba pare dem a kaba lu moo demee si kabudu yi di taxaw si hôtel di ñëw di wax a gars di leen mën di génne blanc enveloppe di leen jox ay loolu yaa ngi yaa nge si sa fautinsaay sa fautinsaay amul pour ñu laa saaj soo na soo bëggee xam ne sa fautinsaay dangaa ñëw nga def ko dëgga wax da doo ñëw ñu laa jox ay million ngaa ñëw pour lan fautinsaay football Gambia du musa dem kaba su nekkee kaba moo fa nekk football Gambia dem kanam gannaaw rek la moo deel lan lay good ADS lan lay kaba defal kaba lu muy defal dara lan lay ay kama yi 1.5 million million ana loolu yëpp lan lañu Gambia defal football Gambia du musa dem kanam nañ ceeñ nañ am ceeñin nañ am ceeñin da wi ne ceeñin fan loolu am loolu am pour alright uh, su ko defee rek uh, ngeen def nii uh, ki nga xam ne moo nekk ci Euh, Kamaso ñoom ñoo nekk ni euh, ñoom neen ñu euh, noonu ñu ngi lan moo nekk di go on nag xamuñ ko parce que si biir la si biir la kii moom moo nekkoon si boori Kaba gis ngeen ko tiimam bi ñoo ko nekk di koo xaw ndeysaan gis ngeen gis ngeen gars ku nekk ak sa stress ma ne ku nekk ak sa stress ku nekk li nga wane ma ne ku nekk li nga wane bu ko defee nag dinañ def nii xool na di dinañ mën a wax ak team Kaba tiim Kaba ñoom ñoo nekk noonu ma ne ko team Kaba ya nekk noonu ah, gis ngeen ko team Kaba ah, na nga def noo tudda man Jalika ah, looy noise man maa ngi kontaan because bi moo win kan mooy sa président président Kaba Bajo den announce loolu am nga yaakaar ne dina mën a continuer li nga xam ne mooy liggéey bi. ma ne liggéey bi is already visible ñun gis nañ ne Kabaa développement bu ñu indil suñ football so let us not be hypocrites. yaa nga gis suñ personal interest bu ñu tax ñu ñu put in uh, our our football into uh, Galima or something else. Kabaa lu mu defal Gambia ñun ñëpp gis nañ ko ñun nañ ko. so buñ buñ buñ jël loolu noonu ñu ñu use ko against the good man pour pour yaxam image am or something else let's have the country xam nga Kaba mau moo moo ñu jëkk soo foog ñu jëkk ñu ñu accept loolu waaw. na nga def noo tudd. maa ngi fay man maa ngi Lamine Camara. Euh, yow ban team nga ah? ban team Kaba. Euh, kan nga foog moo win. Kaba Kaba Kaba. dañ ko announce. yeah dañ ko announce officiel. all right so gëm nga ne Kaba dina mun a sports. to another level of course because um, comme like ni ko nit ñi di waxee rek ah, affaire bi comme sister bi dafa am loo xam ne ne waruñ ko jëlee xol te waruñ koo jëlee passionnel understand this has to do with the state te Gambia lañ war a gis te gis nañ ne with his tenure lu mu defal Gambia ak ni lu mu fu ñu yóbbu daal in terms of football soo si kaw loolu noonu loolu daf ñu trop soo moo tax we give him the chance pour mu continuer ko mu continuer ko yeah soo loolu lay na bayafoo. mën na ko jërëjëf ah, bu ko defee rek ah, nii lañu yeah, you want to take me delegate from uh, uh, all right, delegate from LAL. Yeah. So, long you want to see elections? Uh, election is very fair. Very, very, very fair. And then the president-elect is Lamin Kababajo. He is the one who makes sure that football has reached to, to the land and breadth of the Gambia. So victory to Kaba, victory to him one more time and then we wish that he continue in office, the development that he's coming of it, We only want to give him the room to accomplish that development. All right. So he did so, a lot for the Gambia. Team Kabaya nekk nii ma ne ko yéen Nyom nyom neka team Kaba, nyom nyom neka noonu ma ne ko ñoom ngeen nekk di seen so uh, ñi nga xam ne nag uh, ñoom ñooy team uh, Kamaso nyom ñoo nekk um, the other um, side so mbokk yi just like being patient ñu indi leen li nga xam ne Ah, moom la nekk ah, di gis ah, jamono ji si fi nga xam ne nag moo nekk hello hello Boy, this, this, this is the beginning of the change. It is going to happen. Nobody can, can, can change it. Roger. su ko defee ñu dem dugga si biir inin leen li nga xam ne ah, ah, ah, moo nekk di xew foofu noonu exactly daa rek la moo nekk di xew foofu daa rek thank you yaa maa ngi ñëw yeah so yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan yéen a ngi gis interruption um, si man la because um, ñu ngi woon di other side uh, just ku indil leen um, li nga xam ne moo nekk di fa am ma ko li nga xam ne moo nekk am so right now team Um, bi nga xam ne moo nekk si biti ñoom ñoo ne nekk di make seen um, noise di wax ne uh, gars yi announce ne ne Kaba moo win um, loolu nag leerabut ñu because nekkoon si biir waaye ñi nga xam ne ñooy team Kamaso ñoom wax ne ne daal uh, ñoom gëm ne ne daal ñoom li nga xam ne moo leen war ñoom loolu la gars yi di def uh, ñoom xooloon leen na nga def ñu baalal la waaw ah, su ko defé rek ñu balal ko mom du mëna wax mu ne ko mu ne du mëna a wax ah, su ko defé rek ñu respectal ko li nga xamne mo moo am ligéyam su ko defé rek ah, mom ngeen na nekk di seen ni ñu ngi ni di wa ci li nga xamne nak moy bunti conference bi mané ko li nga xamné moy bunti conference bi ci biir nak nangu won Gambian Talents TV duga waye ñu ngi ci biti rek di leen inel liggéey bi